fu dinaa def tuuti digression. Mhm. wax nga 2012 amoon na. Mhm. wax nga 2021 amaat na. Mhm. mais 2019 mënoon naa amaat. waaw. 2019 mënoon na amaat. c'est vrai maa ngi ci plateau télévision di waxtaan ak yéen. Euh, guddi gi ñu publier résultats yi élection 2019. présidentielle présidentielle président Idriss Seck jiite woon coalition bi gën a rëy. jugee Thiès ñu accrédité ko de vingt pour cent et quelques te ñun ñu jàppoon na am nañ lu ëpp loolu guddi googu am na ñu amoon taxawaay boo xam bu ñu leen toppoon président sa dina génn ndaw ñu topp ko kon li xewul am 21 mars lu ko gën a raw lu ko gën a metti mooy xew maa ngi def émission dina ma dégg guddi googu am na ay ndaw yu taxawoon ci guddi gi ba ñu mënul jot ci moom dañ jot ci man ne ma waxal grand bi mu génn ñu topp ci kawam ñu jël nguur gi mm-hmm. Mm-hmm. ma ne ko boo jugee fii na nga jubal sa kër parce que nit ku ne da nga am ay conseiller mm-hmm. mu ne ma loolu laay def conseiller yi ko wër loolu nga waxoon Idrissa Seck gi mu ne ma euh, bëgg a jëlum réew jarte tax nga def réew mi dóom loolu wax jooju bi nga koy ko waxee yàgg na c'est ce qu'il vous a dit c'est ce qu'il m'a dit dans la fi ñu nekkoon ñun dans la tête de tout dañuy génn. Idrissa buy wax. Mhm. dëkk bi di tàkk dëkk bi tàkk guddi googu maa ngi sama oto ñuy échanger ay SMS. Mm. parce que boobu génn bi day xat ndax boobu nit ñaa ngi fes del ci VDN bi. Mhm. keroog bu ñu génnoon bu mm. génnoon jiitu ci kanam musiba am. Mhm. mu ne ma du ma ko def li nga ma wax lay def daal di jubal dem këram d'ailleurs ñu bëri sax xamuñu fu mu dem këram si jubalul kër fa dem feneen pour kan bañ ko gis. Mm. beneen bi mooy bi yàlla defee xëy na sujet boobu di nga ñëw ci kanam. bi yàlla defee réew mi xaw a daal tuuti. bi ko woowee pour ne ko kat ñaari option moo am continue opposition xeex bu metti mm-hmm. ñu neef le chef de file de l'opposition wala nga jàpp ci réew mi ndax réew mi dal mm-hmm. ndax li fi dugg muy covid bi ak bëj bëj bi ni mu baree ci réew mi mu laajte xalaat ñuy waxtaan foofa la waxee ne aussi loolu waxaat na ko fan yi d'ailleurs mm-hmm. ne li may bëgg dugg de bu ñu ci duggee mun na am sax suma carrière politique mun na fay jaare yem ay ah, la savait ak Mbodj Sow parce que nit ñi duñ ko comprendre mukk waaye fi réew mi toll. suñu responsabilité weesu na toog rek di xeex jàkkaarloog pouvoir xeex ak moom ba réew mi tas suñuy loxo. ñun suñu carrière yàqu suñu avenir yàqu mu yem fi te Sénégal des fi moo gën leneen lu mu mën a doon. Mhm. day am fu réew toll foo xamante ne ñiy wax ci mbedd mi du ñu xam. booba réew mi tar na tar boo nga xamante ne tey waa parti réew mi ak ay ñi bokk ci coalition bi bu doon le 8 mars bii passé fekkoon na leen ci biti ñu nekk ci opposition bi. kon li xew dina doublé wu trois quatre cinq fois kon musiba dina am ci réew mi heureusement que suñu responsabilité parce que ku yor nekk ci nguur pendant vingt ans nekk ci état xam lu bare bare bare bare xam la géopolitique internationale li muy doxee ak li wër Sénégal di ko menacé nga xam ne bu dara yëngutoo rek réew mi tàkk c'est la vérité Sénégal dafa nekk ci ceinture de feu parce que li dal ci réew yi ñu wër yëpp ñun mën nañ ca bañ a mucc mhm. bu classe bi ñu am ba ba ñu xamee ne réew mi Covid bi dal na ci kawam li ñuy wër lépp mu ngi tàkk. dégg nga li ñuy wax jihadisme bi dugg na ak leneen ak lépp bu ñu ci boloon opposition bu nekk ci biir di jàkkaarloo nguur gi di xeex ak moom kon réew mi tas na bu yàgg. d'accord mm-hmm. responsabilité boobu na la ñoon ñun duñ ko mën a jël. Mm-hmm. Euh, boo ma ko mayee. waaw euh, sànq maa ngi wax ne euh, le chef de l'État dafa def appel wax na ak waa MFDC mais comme moom dafa nekk ci. li nga xamante ne moom mooy position Idrissa Seck ak peut-être qui a dicté yenn ci ay position mm-hmm. soo ma ko mayee dama bëggoon mu décrypter waaleel ma. li nga xamante ne Idrissa Seck wax na ko ci conseil. Euh, présidentielle bi amoon à Thiès mais il y a une semaine aussi am na aussi leneen lu mu junj parce que moom des fois day wax ci parabole. lan lan lan nga ñuy décrypter parce que dàqatul samp ndëndam en en en en deux mille vingt quatre même s'il est allié avec avec le chef de l'État ce que beaucoup de personnes n'ont pas trop compris. Mm-hmm. waaw parce que euh, xam nga nag wax ju yegg moom. Mm-hmm. wala fi dañuy wax ne ku xaw a matadi moom moom. Mm-hmm. a ajoor la mhm. man mi am naa wàllu ajoor kajoor ak njàmbur mhm. junj doy na borom xel mhm. te boo xoolee la ko boole woon ak Ablaye Wade muy maanaam mbirum troisième mandat la mu mënul may Ablaye Wade góob na dina ko mën a may keneen ku mën doon ci ko suuf même si vous êtes allié non xam nga allié pour benn benn benn mbir mooy tax ñuy allié réew mi tolloon diggante tagatémbe ñu sacrifié presque sacrifier parti sacrifier avenir politique def loo xamante ne nit ñi dañ la dañ leen sax xaw a xeeb boo ma tuut dañ la las jàppe sax ku doyadi mais responsabilité homme d'État dafay àgg foo xamante ne moo waral Ablaye Wade bi mu tolloo Abdou Diouf muy dem ba ci àgg mu xam ne bu toppee Diouf rek réew mi dina tas seen loxo seen génération mu dem ànd ak moom naxanteeg moom naxanteeg moom moom ba dem jot mu génn dem def campagne def na ko plusieurs fois eh ñu daan wax Allemagne gëla ma jànge te di ko jël souvent en référence parti bi fa nekk suñu parti allié suñu xarit mi FDP di libéraux yi musuñu dépassé quinze pour cent ci élection depuis la guerre depuis la deuxième guerre mondiale dañuy dem élection mais bu réew mi pare ci élection bi ñu xam ne ñoom mënuñu leen ñàkk ci biir réew mi dañuy dem allié wu ak parti bi nekk au pouvoir mhm. jàppale ko pour réew mi stable moo tax Allemagne moo gën a stable ci àdduna bi mhm. xeexu politique bi tekkiwul ne da ngeen doon ay noon ad vitam aeternam mhm. bu dee réew mi leen day am fu réew mi toll foo xamante ne da ngay teer say ambition yëpp seet ki fi nekk xam ne moom la fi yàlla teg nga bañ koo faagaagal parce que boo ko faagaagal réew mi ngay faagaagal moo tax ma la vingt et un mars bee passé deux mille vingt et taxawoon benn taxawaay bi comme ni ñenn ñi taxawee kon dafay daal di doy waar loolu waral mhm. euh, Idrissa nekk na allié ak euh, Benno Bokk Yaakaar mais terewul ses ambitions présidentielles sont intactes man de personnellement ci plateau laa nekk ne naa ko ànd bi man dañoo de pour waajal la la pour 2024. Mhm. boo ci ah dee dem maa ngi ci ak yow. Mhm. boo ci demul nu golo xam boote doomam man Lamine Ba loolu laa ko wax lu leer nañ la. ah loolu mooy sa gëm-gëm uh-huh. pour man Idrissa mooy suñu candidat. Mhm. mooy candidat wu suñu coalition. parce que parti politique laa yoroon bi may ànd ak moom. bu ci dee dem daal comme ni xale yi wax ñu dem ci rek. waaye nag bu dee leneen nag nu golo xam.